Baye. waaw mi ngi noonu ajaratu bitim buub ginnaaw télé bu mag bee di GNTV bi leen gaa yi xawoon na singli daal yaakaar ni la ñuy wax ak nangam nangam. mais dañoo gis Mohamed di wax ay joxe xibaar daal di wax koo xamante ni. Mhm. moo yore wàllum njàng mi dafa faloon koo xamante ni APR la bokk. sonaloon waa Pastef lool léegi nag bi kii falaw mun ko kii nga fal de bu ay pexeem sotti woon. du falo ginnaaw ndaw si bi mu defee vidéo bi nag. Mhm. ñu saytu waa ba xam kan mooy waa ñu folli waa bi ñu foolee waa ji nee nañ fal ki doon kaas. Mhm. ki doon kaas nag daa génn ni leen ah man de xuma kan waaye faluñu ma kon xibaar boobu waa Sen TV yi joxe du dëgg dañuy dem ànd ak élément bi dem ñëw. d'accord boobooy benn information bi leen jox ñaareel bi mooy xam ngeen ne sur la toile y a une dame euh, appartenant euh, au parti PASTEF voilée euh, voile bu rouge boo leen koy gis bi doon kaas ci intendant bi nga xam ne fal nañu ko ci ab benn lycée ca Thiès. Euh, que ñu jéem teg teggi ndax moom intendant boobu dafa bokkoon ci Benno Bokk Yaakaar te xas na wax na lu ne Ousmane Sonko la dame a fustigé la sur les réseaux sociaux booba ministre bi tabb na ko ba pare euh, le ministre actuel ministre de l'éducation tabb na waa jooju mais après cas yooyu dañu gis ne ministre bi dafa reveniraat ci tabb gi mu tab intendant boobu euh, ci cas gi nga xamante ni femme bi kaas na ko li ci gën femme bi doon kaas moo ko remplacé rahmatullah sénégalais yi maa ngi leen di nuyu di leen ziar di ñëwaat ci ñeme yàlla gi waa seen TV ñeme yàlla rek ñoom daal nee nañ euh, ki doon kaas Fatima Zahra bi dëkk Thiès militante Pastef nekk coordinatrice su Sérite Grand Thiès membre fondateur Modap pôle communication nee nañ moom lañ fal intendant te Fatima Zahra moom mësul toog baawu école français. école alaat bi la jàng ba am ci bac te jàngalewu ko la kon xanaa ñeme yàlla ak wax lu dul dëgg ak manipulation ci ñii la fekk baax lu nit di xeex ci yéen rek chaque jour ngeen may ko raison parce que man xeexuma ku am compétence di dem ci appel à la xeexuma loolu xeexuma ku am xam-xam xeexuma post yi nga xam ne dangay am xam-xam mën ko maîtriser ko foo mën a bokk concerné wu ma mais poste yi nga xamante ni nii ki ko ñi ko dépo ki ko déposé woon ma ngi ko déposé janvier yow nga déposé août moom mu jaar hiérarchie normale ëpp la compétence ëpp la lépp say nit nekk fa lijjanti la ba tax nga mën a jàll ñu bàyyi fa ñooñu loolu duma ko nangu te beneen bi ci topp poste politique yi nañ ko jox ñi ñu doon politigal muy lan waa Pastef poste compétence yi APR ak fu mu mën a bokk bu bu amee xam-xam mën koo def nañu ko ko jox loolu mooy sama baax te dawuma ci dellu ci ginnaaw ragalu ma waaw mi ngi noonu ajaratu soxna si nag dina fàttali mi ngi bokk modab moom lañ tànn sax si war a doon bokk si député yi incha allah dana jaar fii si si takk soo bu soobee yàlla waaw moom nag li mu wax moom mii ne rempli kenn mi ngi nii place am di jaay njàng ma xamante ni poste ba njàng ma mu amu ko moom comme mm-hmm. moom jurul poste ba tey soxori soxoriwu ko kee mais it bu fekkee ni kooka nam fa nekkee woon jaaduwut bu kii ñëwee bokk na si jub jubal jubbanti ñu war koo faxas waaye waruñu koo jël di ko fa dugal Omar léegi nag euh, mm-hmm. nee na daal information bi waa Sen TV joxe dara du si dëgg léegi kon nan nan moo tax yéen en tant que daal ngeen di joxe xibaar yooyu. non du du Sen TV kase sax. Ah. man déggul naa ay rajo yu bari fii. ñu wax lii. waaw li wax ni hmm. dégg naa ay rajo yu bari wax. ah kii di ma njaayam di jaay ma nga dama am benn problème. soit rajo moo ak télé moo doxatul na mu doon doxe wala ñeneen ñëw di ko doxal parce que bu dee nii est-ce que gars yi dinañ def un travail rédactionnel maanaam. boo ñëwee di yëngu dara ci wàllu xibaar war nga war ko joxe dina am réunion rédaction ci biir réunion rédaction bi ñii dinañ def proposition ñii dinañ génne menu bi le réalisateur ak ki réaliser journal bi di ko présenter dina jël temps wu xool lan moo jaadul lu war a jàll ak lu war a jàll maanaam journal du dënt du duñ tëb rek ñëw ne élément yaa ngi daam fu mu war a jaar lu mu war a togg la ba mu ñor li ñu war a segg ñu segg ko est-ce que liggéey boobu mi ngi am dëgg-dëgg parce que liggéey boobu bu doon ni mi ngi am dëgg-dëgg pour man rajo télé yu bari duñ bokk juumandoo ci menn mbir wala ñoom du njuumte mais est-ce que nekkul ni danoo bëgg a créer école mi ngi tijji benn crise ci wàllu njàng mi parce que maa ngi gis rajo yëpp ah jox syndicaliste yi kàddu di leen lii naan leen lii ku ne di ci jug di wax est-ce que nekkul ni danoo xool-xool ci wàllu njàng mi gisuñ lu ñu yëngal ñu ne ne école ngi tijji nañ yëngal jàngalekat yi pour man est-ce amul média yu am intention bu toll noonu parce que diggante fal nit ak folli nit pour man warul doon un problème parce que la sañoon nommé Abdoulaye Wade fal na fi nit semaine dindi ko pourtant daawul jur débat yu toll nii Macky daal na fal nit di ko li parce que loolu ñi ñu dénk pal gi ñoom ñoo yor loolu ñoo yor arrêté wala décret bu mën a def loolu kon loolu mënul jur problème semaine bu ne ñu dindi nit tab nit mais pourquoi depuis quelque temps ku ñu dindi ba ci depuis affaire Cheikh Dieng moo war a doon un pour man dañuy chercher problème fu mu amul. même waa ji bu dee da nga ko tabb dindi ko bu dee femme bi nag man déglu naa benn audio bu dee femme bi moo doon wax ci ojo yi ñuy wax. waaw moom yére moom moo muur woon di wax. waaw vidéo naan ki ñu fal APR la bokk bokkul ci lii xamuma man lu tax ànduma ci ñuy fal koo xam ne dafa bokk ci système bale hmm. maanaam ñi dana ñëw ne doxalin wu bees. Hmm. nga gis koo xam ne dafa lagg ci doxalin wala nga indi ko. Hmm. est-ce que du nekk ci biir système bi. Ah, doon ci benn pomme bu ne wala mu doon loo xam ne da koy sànkar di ko yàq. parce que philosophie la ngëm-ngëm la mais ku amul ngëm-ngëm googu ak philosophie boobu pour man pour nga adhérer surtout nga bokkoon ci beneen parti doon doxalee yeneen système ak yeneenu doxali est-ce di nga mën a doxal ak nii ñun bëggee parti boo déggee Ousmane Sonko muy wax beneen doxalin la waxuma la keneen waaye man sax bu yat bi waree dal ci man na dal ci man maanaam yeneen doxalin mu am rupture liñ ma def nii nguur yëpp ko waroon di def maanaam li ñu wax ci affaire budget bi mais gars yi dañ ko daan nëbb nit ñi réalité bi duñ ko lii ñu ñëw ne du leen fen ci bu ñuy dugg mais bu ñuy génte du leen fen kon yooyu yeneen doxalin yu bees la ku tàmmul loolu gëmoo loolu est-ce que war nga ànd ak Pastef di liggéey mm-hmm. kon man côté boobu laay waxee léegi nag mbiru femme bi pourquoi ñu bëgg ko yëkkati def ko un débat média du rek Sen TV moo def lii bi de mm. média yëpp ñoom ñoo jug di ci wax di jox ay syndicalistes kàddu ci wàllu njàng mi di leen lii ci loo xam ne nommé nan la dindi nan la mais surtout jeex na ki la taboon tànn la moom moo dem ba gis ni warutul a tànn beneen bi nag bu dee ministre yi ci tànnin wi ñu xool aussi ñu xool balaa ñuy tànn nit di ko dindiwaat mais ki la sañ a tànn moo sañ ni gëmatuma la yaakaaratuma la dindi naa la mais lii waru woon nekk un problème boo xam ne tey ji bu dee li dañuy def seen liggéey sérieusement Assane pour man lii warul nekk un problème li gën a na jaaru tey balaa ñu naan soxna si parce que li wax moo garaaw du dindi bi mooy ki ko doon dénoncé moom lañ jëlaat jox ko place am. Ah xam nga lool c'est de la manipulation. léegi ki ko doon dénoncé nii nag. Hmm. nee na du man maa jël place bi li mu dee dee dee un journaliste bu dee da nga professionnel mën sa liggéey. Hmm. maanaam lu mel ni bu amee war nga wër numéro soxna si. Hmm. woo ko ni a ah, yow de nee nan yow mi doon kaas lan remplace. mais loolu lu gàtt la te soxna si xam naa ne jafewul jafe gu tax. boo ko woowee doo ko jot. Ah mais yooyu yëpp ñu bàyyi ko fa ñëw di joxe une mauvaise information. kon loolu am na leen luñ ci jublu lu dul faire du journalisme. am na solo. Euh, mu mel ne maa jigéen euh, ndaw si lii mu defit fan yële jamono yi am na ko ñu faloon si poste bi Pastef dañ ko daal di dindiwaat bi ko gars yi dugalee 24 heures ko pour wane ki mooy kan wane ay vidéom si débaam si télé yeeg yooyu ñu dindiwaat poste ba mm. kii it euh, waa Sen TV nee nañ dindi nañ poste ba mais ndaw si moom du dëgg xaw ma nag poste ba dañ na am déet noo déggee waaw kii Assane du sori ci wax ji leen li ma ci wax rek mooy que ne ñenn yi nga xam ne ne dañuy wax ne ay journaliste lañ dañuy ñu ngi bëgg commencer di yàq seen liggéey parce que tamit des fois dañuy gis benn xibaar ci réseaux sociaux yi rek euh, daal di koy jël bëgg ko dëggal surtout nag euh, ñenn ñi nga xamante ni nii euh, da ngay faral di gis seen yi dañuy wax lépp lu ñuy wax rek mooy luy loo xam ne du du du nekk loo xam ne daal defar na ñi nga xamante ni ñoo fi nekk seeni doxalin parce que soo bañee nit moom parfois lu ngay gis mu mu loo xam ne lu ko mën a yàqal na rek à chaque fois da ngay dox ci tànk yooyu noonu même su fekkee lii am na ñoom waroon nañu dem creuser ji pour xam ba xam information bi est-ce dëgg la wala du dëgg ka ñuy hmm. wax ne dañ ko fal ndax folli nañ ko tegaan nañ ko feneen loolu lépp waroon na leen a leer mais waruñu dem ci njort nañ gis nañ lii ak nangam ak nangam hmm. yooyu wax moom fa dëgg yàlla war nañ ko defaraat bu baax a baax te hmm. dégg naa itam femme bi ñuy tuumaal ne moom lañ fa fal moom jàngul mu ngi naan la toog jàngul kay arab la jàngul waaw mu ngi maanaam du du du nekkul du li ñuy wax ne moom la ñuy fal voilà mi ngi noonu léegi nga bëgg a jël ci information boobu nga sukkandiku ci li ngay dégg wala li ngay gis gaa yi di ko commenté ci réseau yi nga bëgg ko teg ci journal bu nga mm-hmm. xamante ne ni Sénégalais yëpp ñu ngi koy suivre loolu tamit baax ajaratu waaw xam nga mi ngi wax ni ay journal yéen a ngi wax journaliste beeg nangam nit ci boppam ngay wax sax nit ci boppam dangaa war a li ngay wax nga xool ko nga xoolaat ko segg ko parce que man man nee naa la man bu ma waxoo bu dëgg ba nu damay rus donc am na loo xamante ni yow ci sa formation dañ la wax éthique et déontologie informé juste c'est vrai defe naa ni loolu aussi euh, dara kutewu euh, la nga vérifier sa information ndax ñoom seen formation loolu lañ leen di jàngal donc nañ koy xoolaat tey bàyyi euh, diffusion yoo xamante ni nouvelle yoo xamante ni wérut daal mm-hmm. loolu loolu am na solo hélas bi may def sama émission damaa falang falang ba gis vidéo si en ci TikTok bi ñëw teg ñoom it ñu falang falang ba gis si TikTok bi seen xibaar ñu ne leen daal li wax du dëgg loolu noo gisee loolu waa xam nga euh, ligne éditoriale dafa am solo euh, xam nga aussi tamit mënoo fekk nit ki ci ligne éditoriale am nga koy critiquer loolu du ligne erreur la que bàyyi télé bi lii mooy seen ligne éditoriale <laughs> mënuñu leen critiquer ci seen ligne éditoriale astaxfirullah léegi problème bi mooy ñu fay wuti ji ay xibaar bu dee yow da nga ñëw kii wan na la ne man lii mooy sama ligne éditoriale lii la léegi yow yaa war a xool ndax da nga jóg pour wuti xibaar wala da nga jóg pour ñu désinformer la su fekkente ni bi man damaa jóg pour ñu désinformer ma hmm. ma dem déglu ji la parce que dañoo nekk pour jéem a désinformer nit ñi léegi bu dee damaa jóg nag man pour wut ay xibaar li xew ci dëkk bi. Hmm. ma dem déglu ji ñi nga xam ni seen ligne éditoriale dañuy liggéey pour jox nit ñi ay xibaar. mais alaay ce que ni nga ko xamee nit ñi xamee nañ ko noonu. Hmm. moo tax nga xamal leen ko pour ñu xam ko. te kii parce que tey dama ñëw pour expliquer pour expliquer sénégalais yi ne leen ñoom ñi ngi ci seen ligne éditoriale lii la. Eh est comprendre nga. donc nag léegi nag sénégalais bi moom moo war a xool ndax xibaar lay wut ku ko wax dëgg wala ku ko wax safaan la sénégalais bi moom moo war a choisir man moo war a choisir Omar. xam loolu. waaw mais da moo tax ma ne ñu xamal leen ko. capacité de discernement bi nga am. xam lan mooy mais xam nga man léegi man dama jël pour moo tax ma ne taxawal comme que man ginnaaw xam naa loolu. parce que mënu ma la ñëw ne leen changer leen yéen li ngeen di liggéey parce que ñoom opté nañ ne nii la ñuy liggéeyee. depuis que nguur gi taxaw ba naga jël nañ seen ligne ne ñoom lii mooy seen ligne éditoriale nii lañ ko bëggee ba dañoo dem recruter ji ñoo xamante ni bii information ñoo ci man ñu indi mhm. pour ñuy désinformer nit ñi léegi nag man ma naan non non lii maa tooñ man maa tooñ bañ nañ ko ba bu ñu jël chroniqueur sax léegi seetatuñ ñu seen xel neex mais dañoo wuti ñoo xam ne xel naqar nañ pour ñu ne leen dee leen leen chronique dee leen chronique. mais télé bi moo opté woon nii lay liggéeyee. mais mais nit ki bu opté liggéeyam ne lii lay liggéeyee. waaw mais ligne éditoriale ay xibaar bàyyi ko rek lii lii ay journal lii journal la. lii bu doon émission sax ñu mën a wax mais lii journal la. mais ligne baa ngi nii. fii lañ taxaw ligne bi taxaw na fi nekk ci ne soble amul jaakam soble yi génn nekkoon ñu ngi nii. journal dafa sérieux de. bàyyi ko journal la de TikTok bi lañ ko jëlee mais journal. mais ñoom. TikTok bi la jógee mais lii mooy seen ligne. foofu ah, man daal jàpp naa lii la. si ko jëlee mais journal la. ma ne ndax man romboon naa lii la non non bul tooñ tamit TikTok. vidéo yi mu ngi si ah, TikTok yi waaw xam nga tey bul bul toog bul nga TikTok yi am na ci TikTok yoo xam ne bu ñu la déggee mën nañ la yóbbu ci yoon. parce que ah. ñii man gis naa ñoom laa am ñu daal ñëpp. di ñii a ñan ah, attention de parce que. waaw déedéet waay yow nag yow it. ah déedéet la télé télé. télé la de. te waa ji nee nañu sérieux dañoo demul gëstu ji la de la rek erreur la rek. man déglu liñ leen yor ab ab rajo boo xam ne dama jàpp ni ñu ngi liggéey. ñaan ñu woo seen correspondant correspondant bi moo def reportage ci lii li Mohamed Diop wax xam ne day jii kii présente mun na bañ a xam li xew mais ki nekk cees nekk fa ay at moom war na xam li xew Thiès. ak kan mooy kan ak kan mooy kan. mais li ma Mouhamed wax la wax. Omar dama la bëgg a xamal <laughs> lenn teg lu ma wax la. actuellement nii. jamono jiñ toll nii. jamono jiñ toll nii ko sax. Assane <laughs> Assane. waaw loolu moo jaaxal. Assane. Uh-huh. jamono jiñ toll nii euh, presse bi dañoo am seen combat bopp. mooy xeex ak état bi. kese presse mm-hmm. ñu ci bari laa ci presse. lu war dañoo am seen combat bopp. daal ne nañ leen jël dëgg ci suul ko dëgg ci sunu tànk di wane lu dul dëgg lii mooy li nga xam ni moom lañ liñ ne yenukatu xëddéem dañuy yëgoo boo seetee yëgoo nañ ñoom ñëpp xaw ma nag fan la ñuy jëlee xibaar yi fu ñu leen koy joxee ñu koy ñuy manipile askan wi mais na askan wi mën a xaajale lay dëgg ak lu du dëgg. loolu rek mooy li am solo ma bokk boo xam dañu noonu la ñuy def. mais actuellement moom wax dëgg naa dañ fa ne Ah. boo xamante ni moom ñu la jox rek xamal ni. kon ñaata la caaxaan gis naa. léegi non ci jamono ji ñu toll ni moom. manipuler lañ jógte mais nag xamuñ ni mënuñu manipuler tamit aussi askan parce que askan yi moom euh, xam nañ bu baax yëf yi. Hmm. donc moo tax gis nga euh, da ngay meew suba. Hmm. ngoon nit ñi leeral ko. donc loolu la donc sunu émission yi ay émission leeral la. waaw macha allah parce que xam nga pareen saay leeral ko donc ci euh, TikTok beeg WhatsApp yi du doy. Hmm. am na maire bu ko seetaan peut-être ci bëccëg. donc euh, dangay ñëw ci ngoon gi di daaj ko waaw ñun moom léegi dañoo taxaw taxawaay boo xam ne taxawaay daaj ji. mais mais ni ñu koy defee gaa yi gaa yi gaa yi de gaa dañuy jël wax ji teg. jëli waxi ministre de la santé bi la mu waxoon ci pulaar. Hmm. teg. Hmm. jëli ay wax teg ne waxoon nañ ko ñoom ni buñ faloo nii la ñuy def. de mm-hmm. <laughs> gars yi dossiers yi garaaw lañ ciy def. Mm-hmm. maanaam yow koy gëm da ngay gëm ne lii man bi Assane indee lii laa. waaw te yaa ma kii may man dama gëmoon ni. li mm-hmm. ñuy jiiñ gaa yi. waaw non non gars yi mais bàyyi leen noonu ñuy manipuler quand mais liñ la ñu ngi leen di encouragé yàlla na leen yàlla jàppale. ci astafurlah yàlla sax foofu mu ne. foofu moom iblis a leen jàppale ci loolu yàlla du leen jàpp. doo ñaan yàlla parce que yàlla moom. Euh, nii non non da nga la ñaanal ñu nekk ci yoonu yàlla na yàlla na iblis xeeb loolu ca loo seen seen loolu ñu ne. du ginnaaw ci manipuler lañ nekk. seen ligne daal mooy mooy. mooy yàq te lëndëmal waaw lëndëmal. yow sa ligne mooy ñun dañoo am obligation di leeral parce que lii lëndëmal léegi dañoo bari trop dañoo bari dañuy lëndëmal rek moo lay wan système bi. mais est-ce que duñ ci maandu rek bàyyi la ñu leen mën. day ñoo tax ah? boobaa yow kon ci nga bi la. ban gouvernement bi Sénégal nga naan gouvernement. Ah, non nga li mooy sa problème. nekkul ñoom ak gouvernement ñoom ak la nga naan gouvernement bi. waa tëjal sax alors da nga mën naan ñoom ak gouvernement bi. balaa nga fi waxaat nekkee ñoom ak gouvernement bi ñoom ak Sénégal la nga naan leen bàyyi ñu leen mën ñoom ak gouvernement <laughs> moom tamit victime bi net bi dañuy mujj ñun sax doon ay victime Ah, kon sant nañ leen bu baax ah, gërëm leen di leen wax xam naa incha allah bu subaa jàmm da ngeen ànd ak soxna bu jëm si victime di yeneen yoo xamante ni mi ngi si kaw taabal ji comme ni ko Elaas waxee rek. incha allah euh, lépp luñ gis rek ñu buñ falangee ba gis si ak leeral nañ ko indi fii leeral ko incha allah. d'accord incha allah merci beaucoup Baye Assane Mesere